Khalifa Sall. Khalifa Sall bu ko Bart jàppale vraiment mu am lu mu am lu bari Dakar dina am dara dina mën a nekk faiseur de roi. dina mën a nekk faiseur de roi. la Lamine Diallo cela dit am na affaire bi ni muy demee. Mhm. am na benn Pastef ñu ñuy tase. Mhm. moom mën na positionné wu. mën na profiter à Khalifa ah, Sall mën na positionné wu. Mamadou Lamine Diallo. Mamadou Lamine Diallo mooy man nit ki ma gën a fan ci Sénégal ci niveau intellectuel. Hmm. man lu mu wax dama koy déglu lu mu bind dama koy jàng lu wax lu mu xamul connaissance yi am ci chiffres ak analyse yi am ci chiffres yi gisuma homme politique bu ko am Sénégal loolu mooy Mamadou Lamine Diallo. mais Sénégalais yi bëgguñu nit ñi mel ni waa jooju. bëgguñu profil yooyu. ñoom dañoo bëgg démagogie kuy wax ak ñoom ci dañu bëgg a dégg.